wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat wasalliyan alayhi abdal salaat waalihi wa sahbihi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saara فنجني وحله أوسارا wa kullu man abani aw mala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne ñooy topp site bi ñuy wax Istikhama ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziyaara di ñaanal baax Cheikh Mamadul Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem jabootu Cheikhul Xadim gi yëpp noonu lañ koy ñaanalee Babul dina Serigne Cheikh Jëmb Fall ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp xam ngeen ne nag liggéey bu rëy bi nga xam ne euh, Touba ci kanam ñu ngi koy ànd ak bokki taalibe yëpp rawatina njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ci ndigalal Serigne Cheikh euh, Jëmbu Fall euh, ci tiwo yi nga xam ne moom la ñuy gas nga xam ne mooy mbiru assainissement bi war a évacuer ndox mi nga xam ne mooy ndoxum taw yi ak ndox yi nga xam ne nekkul ndox mu am njëriñ xam ngee ne nag liggéey bi ñu ngi ko doore woon fële ca Tookër ba jëm si woon ci fi ñuy wax Daaru Xuddoos ci station bi foofa nag gas nañ ko ba techniciens yi monte nañu tiwa yi ba liggéey ba lafa fa des lu néew la moo tax tey sëriñ bi joxewaat ndigal ñu ñëw fii nag ci euh, weeru guyu sew ginnaaw kër sëñ Touba gi ci Daarul Manaan ak côté yooyu yëpp xam ngeen ne foofu tam ndox mi daf fii taa fi la ñu euh, xëy si tey euh, mbooloo mi nag bari nañ foo ko takk rek weesu na ko mu mel ni liggéey bi liggéey bu ama am solo la ndax Cheikhul Khadim dafa jàngaloon murid yi lépp loo xam ne bëgg nañ ko def rek ñu defal ko seen bopp loolu tàmbalee woon ci jumaa ju mag ja ba mu ko digalee Cheikh Mahamadoul Moustapha waaye moom Cheikhul Khadim ci boppam ne moo ko njëkk a digle ci ak nekkam daa waxoon murid yi kenn ku nekk na nekk xam na mu bëggee ab raay te xam ne loolu mooy tax liggéey jumaa ji mën a sotti condition yi nekk tubaab yi teg nañ gas raay bi loolee tam Cheikh Mahamadoul Moustapha dafa tànnoon junniy murid ak juróomi téeméer yoo xam ne ñoo ko doon gas junniy murit ak juróomi téeméeri yooyu kenn ku nekk xam na ne maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina joxe woon na ci juróom-ñaari téeméeri murit nga xam ne Cheikh Mamadou Moussa dane ko lii nga def su ko defee ñëpp duñ ci barkeelu nga xam ne dañoo mujj di wàññi lim bi nga xam ne moom lañ doon joxe lu nekk itam xew na ca pax yooya waaye pax yi lu nekk xew na ci waaye gis nañu ne li am solo mooy liggéeyu Serigne bi du laal suuf la ko Cheikh Mamadou Mountakha waxe woon te dane woon liggéey bi itti rek la laaj ak Pastef ndax Serigne Touba bi muy taxawal yoon wi ci Mbàkke la waxoon itte jooju nga xam ne moo fi nekkoon démb ba mag ñi taxawal ci lu ñu gis ci yoon wi itte jooju itam moo fi bàyyeekoo ba léegi kon damay wax ne ña xam ne ñoom la seen maam nangu woon ba ñuy gas raay ba tey ñuy gas tiwo yi nga xamante ni bi moo war a génne ndox mi fii ci Touba kon nag ñu ngi sant mbokk yi di leen gërëm di wane na tam liggéey bi ñëpp war nañ cee yeb seen i loxo ndax Touba la koy jëme kanam faaw bokki taalibe yi rek ñoo koy def te Cheikhul moo ko gënal fu mu mas a am ndax daa waxoon ne yow sama borom maa wajal ilaahi maskani Touba abad mislas mi haabi jaay xayri man abad te kenn ku ne xam na ne fuy dëkkuwaayu Serigne Touba mu ñaan mu mel ni aljana foofu lépp lu taar ci zahir ak ci baatin war na fee nekk dëkk bi nag yàlla préparé na ko ci baatin ba mel ni mel mu jox ko Cheikhul Khadim zahir si nag murid ñoo ko waree Serigne Touba kon Touba ci kanam ak bokk yi ñu àndal ak waa kër Serigne Cheikh Jëmb Fall ak mboolem Baye Fall yi ak bokki taalibe yi a def ak Serigne Touba jaayante googee nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa woowoon saxaaba yi ci tur deret ñu xëccoo ko te naa saxul mawtu maha wal kullu minum sujaha sëriñ Abdou Lahad nag nee na murid seen i ñàq moo moo mooy li nga xam ne moo wut seen i deret kon murid bi bu tuuralee aw ñaqam sëñ Tuubaa dafa mel ni saxaaba yi nga xam ne ñoo xeex badar ba tuur seen i deret te deret jooje moo suuxat garab ak lislaam ba muy jebbi tey ba ñun ñëpp ñu mën cee jëriñu kon nag ñu ngi sant bokk yi di leen gërëm di sant waa Istikhama ndax istixaama sëñ Tuubaa da koo ñaan ab li istixaama xi malaama ab li karaama bi si liwaahi kon nag ca kanam ca kanam ca kanam wajalilaahi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat wajalilaahi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat wasalliyan alayhi abdal salaat وآلي وصحبه سوي الصلات وكل من قدمني أو سارا فنجني واخرج له أو سارا وكل من عابني أو مالا إلا يفعش حدا أو مالا وكل من ستمني أو لاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فليقلب قلبه يا رب يا فلتكفني عسى جميع العالمين ولتقضي عسى يا رب العالمين وجل بنائي بنا أوافيا يجرني إلى خيور سافيا وجل بنائي بنا علمي وامل بسنة وعلمي واجعل بنائي بنا الاعتدال ولتكفني كيد كل سيتداء ولتكفني دراسة سيتاني وعلمي الباخن في الأوتان ولتكفني كل شخص لم يريد وجهك فاسلم سريعا يزيد ولتكفا جملة ما يفسدان يدي وعن داري سريعا ليس ñu ngi fii ci kanam sëñ Fallou Fall moom sëñ Mouda Aminata Fall di jëwriñu sëriñ Cheikh Jëmm Fall ndigal jógewaat ci sang bi di sëñ Mountakha Mbacké Bassirou tàbbi ci kër Cheikh Ibra mu mel ni boo fa tàbbee war na faa tàbbee Baye Baara daan nañ noonu ngay wax ni mbañum Baye Fall mooy ndigal jóge ci kër sëriñ Touba tàbbi ci moom mbañum kër sëriñ Touba mooy bañ a jox ndigal Baye Fall yi. dëgg la auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi wasalaatu wasalaamu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Sénégal ak bitim réew noo ngi leen di nuyu fii fi nekk fi wetu sëriñ Falilou Fall jëwriñi Cheikh Modou Aminta Fall di jëwriñi maam Cheikh Ibrahima Fall Baol Mouridina ci jamono yii nu toll nii di waxeet ci ndigalam ak ndigalal jëwriñam ji ñuy wax seex Moustapha Fall Falilou ak mboolem njabootug Cheikh Ibrahima yëpp. lii ngeen gis nu nekk ci te sëriñ Falilou Fall di jëwriñ ji day ndigal lu bàyyikoo ci Cheikh Mountakha Mbacké mi fi sëriñ Touba tàbb ci sëriñ Cheikh jëmb mi fi maam Cheikh Ibrahima Fall mu jaarale ko ci jëwriñam jii nag di Cheikh Falilou Fall Cheikh Falilou it jox kàddoom Cheikh Moussa Fall jëwriñam mu yëgle ko murit yi jóg murit yi nag bu ñu dee wax murit yi dëgg dëgg dëgg mën naa ne Baye Fall yee tax ndax bu ndigal jógee xel yëpp dem ci Baye kër goo fi demet ka fa gë ëpp positif ëpp fa njariñ ëpp fa yërmande bu ñu seetee màndargam Baye lañu koy tudde sëriñ bi nag woote ba noppi jiitu ca woote ba ndax woy juram di dafa ma dafa ma sa dégg mu ne moom Seex Falilu Fall jëwri ja ma nga xamante ni mooy jëwriñi sëriñ Fallu mii toog daa waxoon ni digle ak tere yombul ma ne ko loo ko tax a jafe mu ne digle loo deful ak tere loo loo bawul kenn mënu ko ñoom ñii nag lu ñu ndigal lu ñu am bu ñu ko diglee ñoo fay jiitu ñañ fay woo loola tax faaw nit ñi si waaye dara waralu ko nag lu dul gëm nañu li Serigne Touba wax moom i borom yoon wi te Cheikh Ibra xam ko li Serigne Touba wax yàlla da koo defal. waqde awaa ijëla si na daamoo bi xidmati wa ablahum maaraamu loolu gëm nañu ni Sëriñ Tuubaa wax na ko boroomam gëm nañu ni am na moo tax Baye Fall taxoo di wéy ci ndigal di liggéeyal Sëriñ Tuubaa rawatina biir Tuubaa gii nga xam ne nag moom la yàlla sédde Sëriñ Tuubaa te ndigal boo gisee ñu di ko wax dis ko dul dégg di ko niig niigal suratul ijaaba bi sëriñ Tuubaa bind mooy gaaw a wuyu ab woote bu la sëb sëriñ woowee boo fa nekk naan ci taay yi wala feeg suba ñoom xamuñu loolu daal jóg rek jëm ca digga la doonte guddi la te duñu jàmbat aw mar mbaab xiif loolu laa bëgg ñu xam ko moo tax sëriñ Falilou Fall jëwriñu Cheikh Mouhamadou Minta Fall mii ànd ak jëwriñoom Cheikh Moustapha Fall ak mboolem këri Cheikh Ibrahima nag kenn desul ñëpp a ngi teew ci waar wi di gas lii nga xamante ne dañu koy defare suufas Tuuba ngir bëgg nit ñi am fu ñu jaar te duñu jàmbat dara ndox yi taa ci dëkk bi ak taq-taq yi bu ci waa kër Cheikh Ibra waxul du deñ moo tax lu yëngu lu ne dañu naan nañu ko wax Baay Faal yi ñu ndikk defal ko Serigne Touba waaw kii def bëgguk Serigne Touba nooy def ba defee ne du amb ak bëggam Serigne Touba la yàlla gërëm yonent bi gërëm ko mu wëlbatiku nag am jëwriñ ji toll na Cheikh Ibrahima Fall Baol Mouridine Cheikh Ibrahima moom wone nu ñuy war a defal sëriñ tubaa Serigne Touba tëbul rek di liggéeylu de déedéet daa dem ba am ko xam nu ñu koy liggéeyale mu di ko liggéeyal ba mu xam ne nii la bare waa na ko daan ñëw ci sëriñ Touba te boo dikkee boo tolloo ci jàng da yóbbu nga jànge waaye boo xamee ne sa sa sa sa sawu mero ëpp na jàng mënatoo koo def mu boole la foo xam ne fii boo fa nekkee boo fa jógee ku jàng dana la ñee ndax jàng loo gis da ko xam waaye boo mën a liggéey te ànd ak yar ak teggin lu bëgg am ko loolu la Cheikh Ibra tax teel a xam te moom fekk na ko amu xam ba noppi kon liggéey bii bu ko sëriñ bi di woote bu leen deen d'accord tànn naan ñii lay woo bay ñii ndax li ciy juddoo ñëpp la ko yéene li ciy juddoo ci liggéeyal sëriñ Touba ñëpp la ko sëriñ bi yéene moo tax buy woote ñëpp lay woo waaye nag ci Baye Fall lay tàmbale ndax ci la ëpp ab sañ-sañ ci la ëppee yaakaar ni ne bu leen tuddee ñoom kenn duutu am sañ-sañ ab toogati ngir danga naa seexib Ibra woote na loolu waral bu dee woote Baye Fall lay jëkka woo door wax nag ni jullit yëpp nag laa woo mboolem fu mu jullit nekk rek sëriñ bi li mu gis ba xam ko te ko bëggoon na ñëpp am ci kon sëriñ Mor sëriñ Fallou nee na ci ndigalal jëwriñam ji nga xamante ni dafa jégewul waaye kon mooy wax mooy sëriñ Moustapha Fall liggéey bii daal tàllal na loxoom ñëpp la ci woo ndax moom yég na te gëm gis na ni njëriñ yi ci soqi ko te bu sañeen ñëpp jariñu moo xam góor nga mbaa jigéen moo xam man nga mbaa ndaw boo dee ab julit daal Serigne Fallou yéene na la njariñ di judd ci liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bii moo tax mu woo ci ñëpp loolu daal bokk na ci leen war a li war a wax ak boo amee leneen looy laaj nag nga laaj ko. bépp taataa bu nekk ci dëkk bi rek sëñ bi daa sàkk ci Baye Fall dañuy dindi ko. taataa boo xam ne barab lay doon boo xam ne bu taa waxuma la oto waaye tànk sax dafay jafee jaar sëriñ bi bëgg nañu dindi ko defar ko ngir jëmmi sëriñ Touba ndax Touba seetal ko moo gën taqal ko. ku bëgg a set àddina ak àlaaxira seetalal Touba waaye koo xam ne jàpp nga ni nag sa ñàkk xam yóbbi na la seetal Touba ah, du dara fi yow yow yaa nër te doon dara te doo am dara it nag Touba ngi nii daal fépp foo xam dañu naan lii waru fee ne bu ko sëriñ bi yëgee bu ko sante waa kër Cheikh Rafal ñu def ko bala fa war a ne nekk fa. mbale mi tamit yéen ci daan jiitu kañ la ñuy tàmbali mbale mi. mbale mi it bu ñu nee dañuy bale am na ñoo xam ne Ndakaar lañuy ñuy jóge ay camion la ñuy indi indi ay fourchette ak ay bale ak ak i parla te ñu ngi jóge Caaroy ku ñu wax Moustapha Niang mooy ca njiit la bokk ñoo ñi bu ñu ñëwee yebbi bale yi ci kër ga dañu koy partage ci kër Cheikh Ibra yi kër Cheikh Ibra ga dañu yóbbu fa ab lim ngir bëgg mën a bale Touba seetal ko noonu la ñuy def mi bu màggal gi jub see léegi nga gis sëriñ bi rànguwaat nii toogaat ci kanamu mbooloo mi ñu wëlbatiku di setal Touba ndax ñun dañoo bëgg a set faw moo tax du ñu jéem a bàyyi luy taxal Touba Mor Touré. أجرا خيرات يا صاحب الذي ورزقه والتدفيع عنك دين ولتثبتا في جماعة الصلوات الخمس دأبا يا عكيم ونجنا من سر هذا السمن وسر خيره وكل فتن والتقنا سر نزار وسر إبليس وكل سجود والجل والدجال في سوداني في زرق والمغرب والبيداني la ilaha illallah la ilaha illallah Cheikh Ibrahima Fall Kamal nga la ilaha illallah Cheikh Ibrahima Fall Kamal nga faal yàlla yaay buur di borom la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha laa ilaha illallah amasbillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit mbokki taalibe ñoo ngi fii ci liggéey bi nga xamante ni moo di liggéey bi ñu jox Serigne Cheikh Jëmmu Fall jógee ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal lool mu yàgg fi te ànd ak wér ba naal yim naalal Serigne bi yëpp mu liggéey ko lu kawe njortam noonu lañ ko ñaanalee Cheikh Rafal Serigne Cheikh Jëmmu Fall ba naal yim naalal Serigne bi yëpp mu liggéey ko lu kawe njortam ñu taxawal fii sunu sëriñ muy soxna maam Issa Mbacke ku ne xam ko ci liggéey sëñ Touba bi te ñu ñu fekk ko ci liggéeyub Baye Fall yi soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax te di la siyaare. waaw ah, sëñ Abo ñu ngi lay delloo nuyu bu baax di la siyaare. tey jii ñoo ngi lay gis ci liggéey bi ñu bëggoon a xam maanaam ban taxawaay nga ci am Balla sa liggéey ba xanaa xam nga ñun moom ay Baye Fall lañ rek ñun ñooy Baye Fall Baye Fall kon fa Baye Fall teew rek dañ fay teew tey nag moom damay ñëwoon ziyaare sëñ Moustapha rek doon ko yëgalaale mbay mi ñuy def ci ko sëñ Touba waaw di kontaan bu baax rek ci ji liggéey bi te xam ne Baye Fall moom kenn du ñoom waaw fii ku fi ñëw rek yéemu loo jàmbaare jàmbaare ba ñëw fii di nga sa bopp waaw moo tax man bi ma ñëwee ndeysaan su may ronxoñ sax dafa tuuru ak sëñ Serigne Moustapha ni mu toogee ci naaj wi nit ñëwul ko am na ku koy upp sax mu naan upp gi ma upp daa doon dama cee kersaw ndax ni ñaa nga ca naaj te moom fekk ma nga ca naajoo kon waa kër ma Seeram Fall daal kenn du ñoom liñ leen di ñaanal daal yàgg fi te wér rek nga xam ne liggéey bi ñoom rek ñoo ko mën a liggéey moo tax sëñ ko ndax xam ngeen liggéey bi boo ko xool da lay fàttali ba ñuy gas raay ba jamonoy Sëñ Mudu Mustafaa ba ñuy gas ba nii rek la demee woon loolu moo dellusiwaat tey nii rek Touba ca kanam gis ngeen ñoom niñ taxawee ci dëkk bi gis ngeen ni ñuy def ci dëkk liggéey bu rëy bi ñuy def ci dëkk bi boolee alal ak doole ak xam-xam loolu lañ boole di ko liggéey ci dëkk bi gis nga Baay Faal tamit lii ñuy liggéey nii xam ngeen du liggéey bu ndaw doole koy def ak alal ak xam moom lañ boole xanaa di ci soññ ñëpp rek képp koo xam ne yaa ngi ci woon nga gën a góorgóorlu képp ku ci nekk na gën a ñëw te xam ne liggéey sëñ rek a fi nekk moom rek lañ fi gis ci luñ mën a teg loxo fii nag la maam Cheikh Rafa rey woon gars yi kon daal di wooñ ñëpp rek leen wax rek nañ ñëw liggéeyal sëñ Tuubaa ndax liggéey sëñ Tuubaa da ba nga set mu la ba ca kaw ñun nag ñooy Baay Faal Baay Faal ñun fu ñu wootee sëñ Tuubaa rek ña fa amuñu frontière ñoo nga ca Tuubaa ca kanam ñoo nga ca Baay Faal ñoo nga ca fépp ñun ñooy Baay Baay Faal waaw man moom Baye Fall sama sëriñ maa ngi seen taalibe waaw. mu mel ni kon wax na fi wax joo xam Serigne Cheikh Fall Baye góor waxoon na ko bu yàgg ne liggéey bi boroomu doole boroomu xam-xam ak boroomu alal lañ ci soxla te loolu feeñ na ci liggéey Serigne Touba bi te liggéey bi boo xoolee liggéey Touba ci kanam ba mu am ci cër wu rëy moom soxna si ndax bokk ci waa kër sëñ Massamba te sëñ Massamba amoon cër wu rëy ca liggéeyu Gassou Ndiaye raay ba tey na ko ci mu mel ni kon soxna si ñoo ngi lay ñaanal bu baax nga yàgg fi ba naal yi nga naanal sëriñ bi yëpp sa maam ju baax de te ko lu kawe sa njott ci doole maam Cheikh Ibrahima Fall ci barke sëñ Cheikh Fall Baye dellu di ñaanalaat sëriñ Cheikh am sëñ Modou Faty Khary di suñu kilifa di suñu wasila ñu koy ñaanal mu yàgg fi lootu wér ak sëriñ Moustapha Massamba waa kër sëñ Massamba gépp ndax ñun kat sëñ Massamba ay suñu bunt ci sëriñ bi kon ñu ngi ñaanal ñëpp rek waa kër sëñ Massamba ñu yàgg fi la tuur te ko ànde woon nag maam Cheikh Rafal ci njaareem démb rek lañ jógee njaareem ànd ak sëñ Mountakha fa lañ tam xarite bi ci de laa ñëw na ko sëñ Massamba doon defe rek noonu lañuy baaxantal di ko defe àndi ko waa kër sëñ Mori Mbuub ña fa nekk kon ñoo ngi delluwaat di santaat ñëpp rek di santaat sëñ Massamba bu baax rek di wax jërëjëf sëñ Touba ku fi teew rek yàlla na yàlla faj say Baal baal baal baal.

wasaliyaan alayhi abdal salaat waali wasabi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saara fa najjini wa xiblahu aw saara wa kullu man aabani aw maara illa yafasu xudan aw maara wa kullu man satamani aw laama fa ablahu tawbata wa istislaama فكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا رب يا فلتكفني أسى جميع العالمين ولتقضي مسا يا رب العالمين وجل بنائي بنا أوافيا يجرني إلى خيور سافيا وجل بنائي بنا علمي وامل بسنة وعلمي waajal binaa ya binaa al-i'tidaa